la salaamaaleykum aduna salaamaaleykum euh, Sénégal euh, kenn ku ne rek maa ngi lay fekk fi nga toog ne la jàpp loxo comme saa su ne rek ni ma koy defee gis nga tey nag maa ngi fii nga xam ne moo nekk euh, Thiaré ñëw fi nga xam ne mu Sam Sam 3 mu ñëw fekk ci xale jigéen yi nga xam ne macha allah ñoom ñi nga xam ne ñoo mobilé wu pour defal pour defal ndog yóbbu ko ci jàkk ji yóbbu ko ci néew doole yóbbu ci nga xam ne macha allah dañ leen di dimbali ñoom ñu ne ñoom ñooy waa sopp na bi sopp na bi euh, sama caméraman bu ñaaw bi nag mooy topp rek ma daal dugg ci biir rek euh, daal di xool gis nga allah ni ma def sama jarbaat bu xataar boobu nga xam ne tey em lên đi na bagi Himay tagagan niya Lai lai la la Lai lai la la Semagisin gejit mo Gumasu jahangi Geru gernyang Gemlet di na bagi Euh, dugg naa ci di fekk fi jigéen ñi nga xam ne ay jigéen yu mën góor lañu nga xam ne tey dañoo takku ba dëgg rek daa def li nga xam ne moo nekkoon dogali euh, soxna si nuy naa waaw maa lay fay ma yaa ngi am jàmm waaw jàmm rek incha allah alhamdulilah tey ñu ñëw fi fekk leen fi ngeen ne yéen ay sopp na bi euh, tey ban mbébét ngeen am defar li nga xam ne moo nekk ndogo yi waa ndogale de moom bu ñuy sañoon ndax lii dañu koy doog a rek ñuy commencé bisimilahi rahim di ñaan yàlla àggale ci rabil di ñaan yàlla nag mbootaay bi yàlla bu mu gaaw a tas lépp liñ ci mébét yàlla àggaleel ñu ko ci jàmm ak salaam ndax koñ bi fii lii mu ngi fii doo ko am di ñaan yàlla nag def ko ay at yu bëree bëri bëri bëri bëri lépp luñ ci mébét yaakaar ko ci tamit yàlla nun ko ci yàlla defal te luñ ci bëgg yàlla nangul ñu ko ndax dañoo bëgg rek tey jii ñu taxaw rek ci koñ bi fas yéene joxe ndogo ba suñu xale yi daan dem di wuti ndogo feneen duñ ko wuti fenn tey jii fii rek xale yeek mag ñi ñëpp góor ak jigéen ñëpp li ñuy ndax ñoo ñoo ngi doog a commencé dañuy doog a tàmbali nag ngeen ñaanal ñu bu baax yéen tamit yàlla wér seen kër li ngeen bëgg seen liggéey yàlla may leen ko waaw alhamdulilah. macha allah comme ni ko soxna si waxee woon léegi nee na euh, maanaam li nga xam ne moo nekk mbootaay bi benn loxo góor demu ci loxo jigéen rek moo ci daal di dem damay làmb rek suñu yaay ji mu wax ñu tey bés bi nan la ko yëgee maman nuyu naa la. waaw maa lay fay bu baax a baax soxna tey ñëw fekk leen fi yéen ak seen mbootaay bi ngeen di def li nga xam ne moo nekk ndogu bi. tubaar fakal nga may laaj ci ku mel ni nee na si ak waa mbootaay mi ma ciy sawar bokkuma ci mbootaay gi am naa mbootaay waaye mosuma def lu mel nii tey dama leen di wax ne benn loxo mooy takk ba baay benn loxo mooy takk suuf macha allah tubaar fakal la ñuy ay xale nag yu am jom yu nangoo sonn yu fonk seeni jëkkër ñi ci amul jëkkër it fonk seeni kilifa macha allah fekk ko fi moom mi di góor di jullit di yaaram di ko nangoo sonn di ko am fulla di ko am fayda di ko am jom man so ma woyé ci li sang ba légui ma ngi fon man ma rusin ba nagi sang dem nag nako xaar ma ma wat sama kër ma ngi ñëwaat ma sha allah tubar fakkaat la gis nga ko ni nga ko gisé ni non la mel nekul ne bis bi rek tay motax tax ma ne dajale ñu tuut ñu jafé na waye waaye fulaak fayda fo ci mbolo ma sha allah tubar fakkaat la da nga leen di am dama ko naan bés man bokuma sa mbotay sa mbotay bop la yow waye yow bo woté sa mbotay man damay ñëw nak dama sawar yu mel ni wa wa deg ngeen ko yene a ko déggandoo waa El Vision Médias ja neena la ba tey damay lambat ak xol soxna yi nga xam ñoom ñoo fi nekk macha allah comme ni ma la ko waxee woon rek ma ñëw taxawal ki nga xam ne kuy njaag rek moom mooy njaag soxna si nuyu naa la. Ah, maa ngi lay fay soxna. maa ngi waaw maa ngi sant yàlla bu baax. dégg naa yow yaay président bi. waaw man duma président bi nag. Ah, waaye dali man maay maire tour bi ñu jiital ma ñoom xale yi jigéen yi nga xamante ne ñoom groupe bokk jom rek groupe bokk jom am maanaa ndax dañoo groupe sopp na bi waaw ndaxte ñoom nee nañ dañ maa wóolu ba jël ma jiital ma. te man munuma dara yàlla rek mooy ki mën ñu wóolu jiital ma teg ma ci kanam ma yoral leen seen natt munuma bind te yàlla def na it jàngu awma aw xam-xam am na ñu ma ëpp xam-xam te nekk fi bari nañ ci am na ñu ma fi jiit woon nekk fi bari nañ fi bi may xale ba tey nax maa ngi ci koñ bi li ma fi xam bari na li ma fi gisit bari na li fi amit bari na waaye ginnaaw ñoom mën nañu wóolu ba gëm ma rek yaakaar ma rek teg ma ci seen kanam ma sabablu ñaan yàlla yàlla sunu borom bu yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaar bi ñu yaakaar ci man mbootaay bi na dañ ko sos ñuy def chaque samedi bu jot 100 francs ñun jéeg gi fi toog ma ne leen dañuy def ay kees nit ñi di def ay kees bu tabaski jotee wala korite di ko jël di ko jëndee ay yére ki daal nañ leen def kees boo xamante ne bu korite jotee ñu jël caisse googu mu ne am ah, ma ko ñun suñuy ñak la ñoko liggéey suñuy borom kër ñoñu ko may mu law ñu domb ñi di liggéey ñi di daan seen doole kon nañ leen ko jël bu koor jotaté ñuy def sak at ñu tek ben bis bo xamantene dañuy defar ay ndogu séddale ko joxé ko té yalla rek tax ñu ne ma yow de lo wax dañ ci lo wax rek and nañ ci ñu and ak man ci loolu looloo waral tay li nga gis ni lepp du kenn du ben goor du ben mag du ben autorité bu taxaw dimbali ñu jàppale ñu déedéet ñun jigéen ñi ñoo jóg jàppale suñu bopp gëm suñu bopp nax xam ne gëm sa bopp nax mooy tax nga egg fa nga jëm nit ki boo gëmul sa bopp doo àgg fa nga jëm gëm sa bopp rek ak gëm li nga doon suñu dërëm yeeg suñu ñaar dërëm yi xeebuñu ko ñu dajalaatu ba dajale suñu lii ñu am nii taxawuñu kenn yor leket wala këll wala ñu ne nii lii lañu soxla. waaw doguma la yàlla bu la dee dog comme euh, yéen a ngi koy commencé la première fois euh, bi ngeen ko commencé loolu lañ ci daj métti na wala méttiwul ndax fii en général da ngay gis ñi nga xam ne ñoom ñooy def ndogo yi da gis ay nit di leen jàppale wala ay góor ñeneen ndax bi ngeen ko defee tey métti na wala méttiwul loolu lañ ci daj. ah ñun sant yàlla méttiwul ci ñun booy jaamu yàlla du metti soo xamul jaamu yàlla day metti waaye boo xasee ba xam li ci jaamu yàlla dootul metti ci yow mettiwul ci ñoom mettiwul ci ñun ndax dañ cee demee ngëm nga dem ci ak sunu xol dem ci ak sunu yéene waaye lépp luñ ci séntu woon sunu borom defal nañu lu ko ëpp ndax tey biñ taxawee ba taxawal li motul at kees gi biñ ko commencé motul at kon liñ ci bëggoon ñëpp am nañ ko ci dara manqué wu fi du dara du lenn loo xam ne nit dina ko fi ñëw tey soxla ko fi te doo ko fi gis du nit lu muy bëgg tey ñëw fi te doo ko fi fekk lépp lu fi waay séntu tey lu fi waay bëggoon rek tey boo ñëwee di nga ko séntul nga gis nga lu raw loolu fii waaw sant ñoom nii nag awma lu ma leen di fayee ndax ñoom ñun ñëpp benn lañ samay rakka ak samay doom ak samay mag sant naa leen gërëm naa leen ñoom ñi ma jàpp teg ma ci kanam jiital ma munuma dara nax yàlla rek moo mën waaw ñu ne ma lii dañ koy jël ko sa loxo nga organiser ko te tamit organiser jiitaluñ ma ba pare di ma fakastal ndax jamono ji nit ki da lay jiital ba pare la fakastal nekk ca ginnaaw naan kii lañ ko jox nii ak naa jiital nañ ma ba pare te la may def teguñu ci seen bët teguñu ci seen xol teguñu ci seen xel soon ñu ci benn yoon ndax dañ cee demee xol ak yéene te dañ ko def ak yéene ak gëm li ñu doon ak bëgg suñu dëkk bii mu developpe jëm ci kanam looloo waral ñu def lii ñu def sonn ñu ci benn yoon amuñu ci benn coono waaw. lan ngay tàggatoo waa El Vision Médias lan ngay tàggatoo sa xarit ak say mbokk ak sa jigéen yi nga xam ne tey ñëw nañ ko. waa ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. lépp lu ci waay mën ren bu déwénee yàlla na nga mën lu ko raw ci barki Seydina Mohamed dërëm bu ci doomu aadama def tey bu déwén balaa déwén yàlla na la yàlla may lu kawe sa njot yéen tamit yéen ñi def déplacement ak dérangement ñëw ba fii fayuñu leen dërëm joxuñu leen ñaar dërëm ngeen ne dañoo bëgg ñëw jël leen te yàlla rek tax ñu ngi leen di ñaanal ci kaw ci kanam fi ñuy séntu télé yi gën a mag ci télé yàlla nañ leen séntu fi ko raw ci barki Seydina Mohamed ci barki sëñ Babacar ci barki Alaaji Malick ci barke Serigne Touba ak ku nekk li ngay séntu rek yàlla na ko yàlla defal ci barke Nabi waaw ndax loolu rek lañ ci séntu woon. macha allah yéen a ko gisandoo tey ma ñëwoon fii nga xam ne moo nekk Samsam 3 ma ñëw fekk fi jigéen yi nga xam ne ay jigéen yu mën góor lañ jigéen yi nga xam ne dañoo takk seen sër bu mu dëgër rek pour liggéey pour dimbali doomu aadama yi man puissance nee la saa su ne nii laa koy defee rek dama leen tàggu rek ba beneen yoon di nuyu waa El Vision Médias a baax jaajëf gëm Moustapha yaa ñuy solal ay yére yow yaa ñuy jox ay dépense nu nu nu doon naa dina baaxee may tagga gën ñaa soppee soppee

Cheikh Saad bu nee na laa am di laa humal li xayrihi mada mada gëm naa dina baaxi kii may tagga gën ñëpp kii may tagga raw ñëpp yéen ñi soppee gëm leen dina baax ça va sama géer seen géer moom duma su jaam ñi géeru géer ñange gëm leen dina baaxe ki may tagga gën ñoom lay lay la simge moom du maasu jaar ñi géeru géer ñange gëm leen dina baaxe ee waaw lay lay la la soppeye waaw sama soppeye sama xarit yee gis naa seen doxawaay gëm leen dina baaxee ki may tagg gën ñoom